yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. jërë ngeen jëf mbokk yi nuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel. ci weeru sell wi ñoo ngi ci dëkk bu sell bi di Touba fii ci grande mosquée bi benn fan ci weeru ramadan 1444 ginnaaw gàddaay gi dëppook le 23 mars 2023 ci xibaar yi nga xam ne moom lañu leen fas yéene baaxee ci biir weeru koor gi lépp loo xam ne day bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi dañuy dooree xibaar yi ak wàccaayu ko weeru koor gi fii ci Touba rawatina fii ci grande mosquée bu Touba daayira Muxaddamatul Xidma niñ ko baaxoo amalee ànd nañ ko daayira Ashaabul Jannati ngir dindi mboolem poussière bi nga xam ne moo nekk ci juma ji waajal bërëb bi waaye it noonu la daayira Muxaddamatul Xidma amale soppite mu jëm ci mboolem lamp yi nga xamante ni moo nekk ci jumaa ji lépp rek ngir taaral bërëb bi nga xamante ni ci diiru weeru koor gi mbooleem jullit yi wala jullit yu bëree bëri fi la ñuy ñëw di fi gën a amal seen jaamu yàlla waaye conférence yi nga xam ne moom lañ fiy amal ci biir weeru koor yi jëm ci it ci li xam ne moom moo di ndog yi moom moo tax gën nañoo waajal bërëb bi nga xam ne moom moo di jumaay Tuubaa ji lépp rek ngir mu yemb ngir ñu fas yéene ànd ak mbooleem jullit yi li nga xam ne moom moo jëm ci weeru koor gi mbokk yi ku ne yoonu murit ne ndigal moom moo tax daayira Muxaddamatul ma lépp lu ñu def ci ndigal lay tënku moo tax euh, bi koor gi jub see rek dem nañ ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides leeral ko lép loo xamante ni moo jëm ci liggéeyub koor gi waaye defal ko rapport mu jëm ci bilan bi nga xam ne moom moo jëm ci koor gi ak lépp li nga xam ne moom lañ ci jotoon a def loolee nag ginnaaw gi dégluwaat Serigne bi jox na leen ndigal ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi ñu wéyale ko ci weeru koor 2023 bi ñu ànd teelu kàddu yi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides mu ne ndigal li mooy dañuy yeesal lépp rek mu ne waxtu ne dañ koy yeesal bu mu yokk na yokk rek waaye ki daay du wàññeeku mukk mu nekkoon kàdduy euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides ci ndigal li nga xam ne yeesalaat na ko ci daayira Muxaddamatul Xidma ci seen taxawaay jëm ci weeru koor gi ba léegi bokk na ci xibaaru koor gi daayira ilhaamul latiful xabiir bu tuubaangu yi ni nga xam ne noonu la koy àndeek saa su ne daayira mu xaddamatul xidma mu jëm ci eh, ndog yi ñoom nag indi nañ fi lu toll ci eh, juróom-ñetti fukki saa koy bisaab ndax ñoom at mu njëkk ñoom ñooy fàggu lépp loo xam ne moom moo jëm ci bisaabu ndog li loolee nag indi nañ ko jébbal ko daayira mu xaddamatul xidma mbokk yi ku ne koor ndogu ku ne ndogu it tudd mburoog yi ca aajo moom moo tax daayira mu xaddamatul xidma benn ci seen bangaas yi a nekke ca diwaanu Louga am nañ fuur boo xam ne installé nañ ko fii ci jumaa ji ngir di ci mën a lakk mburu ak yenn ci bernde yi nga xam ne moom moo jëm ci ndog yi muy gâteau ak yi ci aajaw loole nag di liggéey bu am solo boo xam ne da leen jàppale ndax liñ daan yittewoo ci wàllu mburu ak ay gâteau day takk lool ci ndog yi nga xam ne moom la ñuy baaxee mbooleem jullit yi nga xam ne ñoom ñooy ndogoo fii ci jumaay Tuubaa ji mu nekk four boo xam ne jot nañ ko installé ba ñu ngi ci liggéey ci biir weeru koor gi mbokk yi daayira Moukhaddamatoul Khidma ba léegi ci wàccaayu koor gi amal nañ ndaje moo xamante ni ñu ko seqoon nag opérateur économique yi xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba tënk ak ñoom ci li nga xam ne moom moo jëm ci seenub taxawaay jëm ci ndog yi ak yitte yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ko ci amal mu nekk ndaje mu yaatu moo xamante ni ñëwaat nañ ci ponk yëpp yi nga xam ne moo jëm ci taxawaayu opérateur économique yooyu léegi ginnaaw ndaje mi nag ki nga xam ne moo di Serigne Abdoulaye Diop am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu ànd teewlu ko euh, tey jii nag ñu ngi ci biir jumaay Touba nii dëppoo ak juma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars atum 2023 euh, nekk itam ci weeru baraxlu ndaje mi nga xamante ni moo ñu fi tax a teew nag muy ndaje mu am solo moo xam ne ku tudd weeru baraxlu xam ne ñu ngi dëgmal weeru mag wow di cheikh ramadanul mubarak di weeru koor te daayira muxaddamatul xidma am taxawaay yu am solo yoo xam ne mi ngi ko ciy def te yàgg koo def mu jële woon ndigal li ci Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu ci atum 2005 ci mu taxawu jumaa ji ci ndogu yi ak waxtaani diine yi fi am loola nag ci fàttali ba ñuy jot ndigal li ñi ngi ko jote woon ak suñuy mbokki taalibe yu nekk ci dëkk bi tey yaxantu ñu leen di wax ay opérateurs économiques day comme ay commerçants ak i ouvriers ba ñu jotee ndigal li nag ànd kook ñoom di ko doxal ba ren ji mu àgg fu kawe njort Euh, ci loo xamante ni tàmbalee woon na ci lu matul million ca weeru koor wa wépp bu ñu demee ba nan budget bi àgg na juróom benn fukki millions yu tegal kon loola mel na ne dox na ay jéego yu baree baree bare euh, ndaje moom nga xam ne ñoom lañu war a def ak ñoom nag moom moom moom lañ doon amal tey fii ci jumaay Touba ànd ko ak ñoom ngir leeral liggéey bi nga xamante ni moo weesu woon daaw ci wàllu koor gi ci mbooleem domaine yëpp commission yi nga xamante ni ñoo séq euh, liggéey bi te ñu aju ci daayira Muxaddamatul Xidma muy juróom-ñaari commission bu ci nekk lam ca def ak lam ca réalisé ak lañ ca def ak li ñu fi indi lu ñu fi indi ci wàllu xaalis ci wàllu bagaas ci lu mën a doon tàmbalee ko ci benn dërëm ba ci benn tàndarma ba ci kilo suukar lu mën a doon loole fës na ci rapport bi waaye itam fañ ko dugal itam ci wàllu fonctionnement ci lu jëm ci ay ndogu lu jëm ci ay fonctionnement lu mën a doon loolu tamit tënk nañ ko ci rapport bi loolu moo doonoon solos ndaje mi tey nga xam ne ñoom lañ ko seqal opérateur économique yi nga xamante ñoo nekk ci biir dëkk bi mais eh, Serigne Moussa Mbaye ak eh, Serigne Bara Diop doon leen coordonné ak itam kuréel gu gi nga xamante ni moo judd ci seen biir ñu leen di wax assis association des commerçants et industries du Sénégal ñoom itam ñu ñëw fekk si liggéey bi loolu moo doonoon solos ndaje mi nga xamante ni moom lañ doon amal tey nga xam ne tey ku seetaan eh, journal bi da gis Euh, ndaje mi nga xamante ni ak kaddu yi nga xamante ni moo fi jot a jib loolu lépp nag ñu ngi ko amale ci kilifteef ak njiitul sëriñ Afiya Buso so imam mi nga xamante ni moo njiitul daayira Muxaddamatul Xidma mbokk yi ba léegi ci xibaar yi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu bi ñu séentoo weer wi ci la feeñ muy weeru koor gi bi mu feeñee nag door nañ naafila gu njëkk fii ci grande mosquée bu Touba niñ ko baaxoo amalee ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre moom moo jiite gee ginnaaw gi nag yëkkati na ay kàddu ni mu ko baaxoo amalee saa su ngir ndokkeel mboolem jullit yi waaye soññu leen ci farlu mu jëm ci weeru sel wi nga xam ne moom moo di weeru koor wi ñu ànd teewlu ay kàddoom yi nga xam ne. di ko tàmbalee sant sunu boroom minu defal fekke ak tal di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel sëriñ bi xaasatan di ko ñaanal yàlla mu gën ko sàmm aar ko kattanal ko mottalil ko mboolem naal yi innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir di fàttali mbokk jullit yi yépp ne weer wi passé la chance la ngir gën a jege yàlla ak gëna a sori safaan sunu boroom faratal ci nun woor ko ci laaya bi ñu jàngoon ci gannaaw di laayab yaa ayyuhal ladiina aamanu kutiba aleykum siyaam ngir nu am taqwa te sax ci taqwa di loo xam ne ku ko am am lépp ndax day maye xam-xam wattaqullaha wa yuallimukumullah di maye wërsëg wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqu min xaytu la yahtasib mbokk yi ba léegi ci xibaar yi fii ci euh, Touba Mbacké ci biir weeru koor gi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ku ne xam na ak bëggam lu baax ba tax na day ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom la ñuy def euh, ci biir weeru koor gi ba na yëkkati na addee ju takku daal leen koy jébbal ànd ak ñoom rek mbooleem li nga xam ne ay charge lañ mu euh, diis lool ci koor gi waaye jébbalaale leen tamit suukar ci lim bu takku lool ngir ànd ak ñoom ci ndog yi nga xam ne moom la ñuy jébbal mbooleem ñi nga xam ne ay julit lañ te ñi ndogoo fii ci euh, jumaay Tuubaa ji mu nekk euh, jëf ju rafet joo xamante ni mboolem taalibe yi rawatina daayira Muxaddamatul Xidma rafetlu nañ ko waaye ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mu gën fee yàgg waaye gën a ànd ak ñoom li nga xam ne moom moo di euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci jumaa ji mbokk yi ba léegi ci xibaar yi bokk na ci ku ne weeru koor ne dundal ko ci résidence Xaadim Rasul ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi di àndeek saa su ne daayira Hizbut ci njàng mi nga xam ne moom lañ fay amal door nañ ko niki benn fan ci weeru koor gi ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou ak ñenn ci njabootu ko Serigne Touba gi kuréel bu daara Hizbut Tarqiyyah seen kuréel national bi ñoom ñoo fa jàng xasida yu yaatu ci teewaay ki Serigne bi mu nekk njàng moo xamante ni noonu la fas yéene wéyee ci diirub weer koor gi ginnaaw tàkkusaan fii ci Touba Mbacké